acca gars yi ah nañ leen siyaar leen mbokku téléspectateur ñuy suivre Zambro TV ah gars yi nag namoon nañ leen euh, tey nag comme ni ñu koy defee chaque année gars yi boo leen xoolee euh, saison bi tëj na waaw comme ni ñu koy defee chaque année ñoo rek pour def euh, bilan fin saison yi parce que boo xoolee gars yi depuis boobu léegi gars yaa ngi woote ah ñii di envoyé message yu mbër par ci par là ah looloo tax tey nag lu fas yéene andi leen bilan fin saison mbër yi mais nag avant ñu commencé bilan yi. Euh, amuñu mbër yëpp képp koo xam ne am nga mbër boo xam ne yaakaar ne yaakaar nga ne euh, war nañ ko mën a defal bilan ah nga envoyé ñu message envoyé ñu nombre de drapeau yu mu am pour ça ñu defal ko affice waa voilà kon nag euh, gars yi laataa loolu ku ci abonné gul aboneel laal ko notification bi te gars yi bu leen fàtte suñu mbopat bi le 14 septembre incha allah fële ca Palma ngay ngàllu ah Mpate waa Zamgo TV ñu tegal mbër yi benn nag ak cinquante mille francs animation Mbengue Loum lay doon ah ak Hamad Babouka ñu ngi woo ñëpp nag amateur yi mbëgg yi le 14 septembre incha allah fële ca Palma Ngal waa Zambro TV ñoo woote Babacar Louga dëggal mbëgg yi nag ak cinquante mille francs ah am nay invité surtout yu fa nekk ah du ma lim toog xam naa naa tafe euh, na na na jàllal affiche bi euh, ci ci vidéo bi. gars yi nag euh, boo leen xoolee saison yooyu nag ah ñoo ko gisandoo neexul. mais nag fi ñuy njëkkee mooy ci catégorie poids lourd yi ah yaakaar naa ne catégorie poids lourd yi nag ah. ngañ seen moo ëppale ay drapeau euh, d'après bu ñu defee ay recherche euh, gis nañ ne ngañ seen moom am na vingt et un ci biir vingt et yooyu aussi moom ngañ seen 17 euh, la gagné ñàkk ci di 17 final yi nag après naa posté affiche bi ci écran bi ngeen xam dëkk yi parce que bu ma nagee fi bu ma nagee nekk fii 17 dëkk yi vidéo bi day gudd

saison bi di ñëw xam nga mooy loolu ñu gën a bokk ci meilleur yi parce que xale nga ah mën nga li ngay def mooy loolu voilà moom si moo ñoo jox dix final la am day gagné euh, huit perdu bu ñu jógee si si moo ñoo jox ñëw si Toubacouta ah Bougou Saloum ah du Bougou saalum sax Toubacouta nekkatoo Bougou saalum Bougou Saloum fils de Batling la voilà moom Bouba Koutal bi suñu doom day depuis Kamba ngee ko ñu ngi koy siyaar bu baax a baax moom Bouba Koutal voilà Toubacouta def na

moom euh, CFA bu CFA jaxaw def na 23 final ci biir 23 final yi ah def na 16 gagné ak 7 perdu moom CFA Diaw ah 23 final 16 gagné 7 perdu bu ñu jugee CFA ñu ñëw si Ndiak seen Ndiak Sène bu sumoon ah mbaru Famara bi moom def na vingt 22 final 20 gagné 2 euh, perdu ah gars yi nag sànq comme ni nga ko waxee comme ni ma ko waxee ci vidéo bi. nee naa leen coow li bëri na diggante CFA ah, ak Ndiassane ki naan mooy kii mooy meilleur poids léger mais selon man sama gis-gis personnel laay joxe bu doon selon man dama jàpp ne Ndiak seen mooy meilleur bi boo gisee ma leen la Ndiak Sène mooy meilleur bi parce que boo xoolee Ndiak seen daanaka mise yu mag yi poids yëpp euh, yu mu yu mu participé da koo en plus boo ñëw ci confrontation directe yi moom maa nag mooy moom ak CFA jaxaaw bu ma jungal bëri nañ ñaari yoon saison ren Ndiack Sène moo ko génnee ah. boo jógee foofu aussi nga ñëw ci làmb ndubaab bi nga xam ne mooy classico bi képp kuy poids léger biir Sénégal fii nii da ngay gee jël làmb jooju ah làmb jooju nga xam ne poids léger yëpp foofu lañ nekkoon ñoom Ahmed Double Moteur ñoom Thieb Joal ñoom Brosse ah ñoom Djidiack Djilas ñoom Seva ñoom Monument Ndiaye gaa yëpp ñoom duubal mu jël gaa yëpp foofu lañ nekkoon moom Ndiack Sène Bousso mën ñoo imposé wu jël ko te biir loolu te ci loolu aussi euh, moom def na 22 finales selon information yi ñu am Euh, CFA def 23 final différence euh, ben ben ben ben ben benn final la te bo xolé ci côté euh, côté drapeau ñak 20 la jël ñak ci ñaar te bo xolé CFA mom 16 la jël ñak 7 final donc selon sama gis-gis dama jàpp ne njaag seen ah moom mooy meilleur lutteur ci diggante mom ak CFA bu ñu jógee si njaag seen aussi hein ñu ñëw ci brosse el bandi ah mbogu musa Thiaré bi ah suñu garani ñu koy siyaar bu baax ba wala nga ne mbogu ivon mari mom moom brosse el bandi mom nak def hmm, na 13 final 10 gagné 3 ber perdu mais ci biir 10 gagné yo yooyu as aussi gaay bo len xolé hmm ay lamb yu bish ay lamb yu am valeur la jël parce bo bu ma juumul jël na jël na fas ah saison ren kan. jël jël lamb quoi les 2 millions biir Fatick maanaam Brosse boo xoolee si dix làmb dix dix final yi mu gagné yi nii am na ñoo xam ne am nañ ay quinze final boo la boo xoolee ci côté chiffre d'affaires ah moo moo leen ëpp xaalis kon nag euh, affaire yi tamit des fois gars yi fa muy sóoraale loolu am na ñoo xam ne am nañ dix final ñi am quinze final mais ki am dix final moo leen ëppale xaalis parce que làmb yu mag yi yëpp da ko raafle moom Brosse El parce que jël na Fatick trois fois te Fatick boo xoolee ay musulman kese la ñuy teg ah jël yaayam arrondissement bi aussi wax noppi kon nag mbëggum Moussa bi ñu ngi koy encouragé di ko félicité moom def na treize final dix gagné ah trois bi bu ñu jógee ci bos ñëw ci ceeb bu Joal ah bu Joal aussi def na saison bu exceptionnel def na quinze final ah quinze quinze final euh, onze gagné quatre perdus mais ci biir quinze final yi moom ceeb bu Joal ah mbëggu grand Landing bi ñu ngi koy chaar bu baax a baax grand Landing Nijaran borom Toubacouta am na ay lamb yoo xam ne poids lourd la ceeb daa xaw a mélangé quoi jël na poids lourd jël na tànk

chaque jour des compliqué chaque jour day compliqué du découragé ah ngeen yàlla waa waa wa waa Njaanda hmm, jàppale leen monument xale la mën na bëgg te bëgg nañ li muy def moom aussi def na 17 final 11 gagné ah hein, 6 perdus monument Njaanda ah ñu ngi koy félicité ñu koy naan bonne continuation voilà bu ñu jógee si monument ñu ñëw si Diamène euh, Ndag Gandiaye Diamène Ndag Gandiaye def na 14 final ah 7 gagné cette perte bi moom Yamel nag Gagna moom aussi bokk na ci course poids léger yi nag boo leen defee benn remarque bu ndax mooy poids léger yi ma la si del ñu bëri boo xoolee ah, ils ont ate la barre des dix finales ñoom Monument ñoom ah, Ndiak Sène ñoom Ahmed ñoom Thieb ñoom Dia gars yëpp mooy loolu def nañ ay résultats yu baax bu jógee ci euh, Monument Ndiané ñëw fii ki xam ne mooy. Euh, Pa Moussa Sapeur Pa Moussa Sapeur nag ah saison nak euh, demeul nonou mom na final la def hein cinq gagné quatre perdus Pa Moussa Sapeur ñu ngi koy encouragé ah ñu koy naan la gëna a defar waat voilà. kon nak gaay yi dañu xaw a résumé rek am na yeneen mbër yoo xam ñu ci lim mais dañuy gattal ci bi di leen di leen jox rendez-vous hein ah, inshallah allah le 14 septembre ñu ñëw woote waa Zambro TV tëggal mbër yi nag ak cinquante mille francs fële ca Palmarin Ngallu animation lion de shop mbayang lu mu lay doon ah ak xamat baalu ka te gars yi bu leen fàtte abonné wu nee naa leen ku bëgg am information làmb en temps normal et information lu leer